an kumbaye eh, eh. jasalan ma imim na cerere Toubacouta Pakala Lawbe Pakala Lawbe am na ngembu Toubacouta jàppul fenn Pakala bëtt na ko war na ko ndomba Touba bañ na la ilaha illallah jarkandalu na ak moom he la ilaha illallah he rëpp na la ilaha illallah Toubacouta Pakala Lawbe combat ba du yombu mbuur la ak campement Pakala Lawbe jàpp na Toubacouta jàppul fenn ehe ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk ehe waaw waaw Pakala Touba capté na tànk ba ee rëccaan na nee ko teel mu ngi koy jéem a xar mu ngi koy ee sa tànk la nelaw booru na ko mu ngi koy mboot Touba ñu xool Touba Kuta ak nga xam mooy Pakala Lawbe ee Touba war na ko ndomba Touba Kuta war na Touba daan na ko Touba daan na Pakala